bismillah kon xam naa ñu ñëw ci bindu ñeenteel bi ñu ngi yemoon ci tuxri tuxri bi liini xadiisiha wa kalaamiha wa ida satat fa hiya saxiiru l ashtabu wabda aduwaka bittaxiyati waltakun minhu zamanaka xaaifan yataraqabu waxdarhu illa qaytahu mutabassima fallaysu yabdu naabuhu id yaxdabu inna al aduwa wa in taqaadama ahduhu falxiqdu baaqin fi suluuri mugayabu wa ida sadiqu raaytahu mutamalliqa fa huwa al aduwu wa xaquhu yutajannabu laa xayra fi wuddi imri'in mutamalliqin xulwi lisaani wa qalbuhu yatalahabu yalqaaka yaxlifu annahu bika waathiqun wa ida tawaaraa canka fa huwa al aqrabu wasil ilkirama wa in jafawka bi jafwatin fasafu anhum bitajawuzi aswabu waxtar qarinaka wastafihi tafaxura inna alqarina ila almuqaaran yunsabu inna alganiya min alrijali mukaramun wa taraahu yurja ma ladayhi wa yurgabu wa yubashu biltarxibi cinda quduumihi wa yuqaamu cinda salaamihi wa yuqarabu dafa tolloon ci wax jigéen li la wax ne la maanaam bu leen wóolu euh, ak donte sax nee na daa wax ba giñ itam nee rek jëru jàpp la mu wax jàpp gi mooy jërut euh, maanaam nga jaare ca wax joojee mu wax ba tax nga jëf mbaa nga bay ba tax nga jëf mbaa nga bañ jëf ndax mën na laa jural ne la nga jëf ta teg ko ci waxam joojee demewut noona tax mu ne woon laa tamanil unsa zamanaka kullahu yawman walaw xalafat yaminan takdibu foofu la ñëwoon ndax nee na ak donte wax na ba giñ sax neen teewul mën naa wax naka surul noona kon nee na bul wóoru mukk ay waxam ci wet googu ndax mën na laa jëfloo mbaa mu teelaa jëf te fekk loola da ko laloon rek ci ay nar tuxuri dafay xirtal dafay xirtale bi liini xadiisiha ci nooyeg waxtaanam wa wa kalaamiha ak waxam ja wa ida satat wa ida satot ndem song na fahiya kon moom assaxiilu mooy jaasi jañu daas al ashtabu bay aji ami ay naaxaatu xeeti bañ lay doon daf ne maanaam ay waxam mën naa neex lool maanaam mën na laa ñoddee ay waxtaan wu neex ak lamiñam wu neex ak ay waxam mën na la ko ñoddee xirtal la ci boppam waaye day bu meree ba song la xamal ne mën gaañ lool songoog mu lay song lay wax ne métti gi mën a gi mën a métti nag lay lay wax ne mën na mel ne rek jaas jooju nga xam dañ la ko dóor jaas jooju nga ne dañ ko xaj si bam ba mu ñaw lool am lu mel ne ay bëñ ñu dóor la ko la wax ne mën naa mel noonu moom ku jigéen moom ku jigéen ki waaw waxtaan mën naa neex lool ak waxam ba tax mu xirtal la ci boppam waaye nag nee na teewut mën naa laa song song boo xam ne maanaam mooy raw mooy raw ci yow jaasi jooju nga xam ne dañ ko ñawal lool nandal ko wabda na ngay njëkkee aduwaka sab noon bi taxiyati ca nuyoo ba wal takun ta nga nekk xaaifan di aj ragal yataraqabu kook dana foglu minhu ci moom zamaanaka diirub sa jamono sag dund gépp daf ne sab noonu la wax ne am noon moom ak noono yàlla koy dogal maanaam ay moom mën nañoo noonoo dara nekku ci maanaam lu yàlla dogal la man mën naa am waaye nag feeñal noonu ga ci yenn melo yi nag loolu moo xaw a kii koy dogal nee na sab noonu la wax ne maanaam bul ko xamal ne mukk xam naa ne yow mii dag maa noonu foo ko fekk daal nee njëkk koo nuyu maslaak moom foo ko fekk daal dee ko njëkk nuyu di maslaak moom mel mel ne daal koo xam ne xamoo dara ci lim li xamoo dara ci lim la nëbal waaye nag nee na bu tax rek nga ubbil sa bopp nag foo ko neex jaar déedéet nee na foo toll rek dee ko surveiller di ko fuglu waaw tey di ko ragal nag di ko del ko ko ragal di ko fuglu mooy bu la xamal lum lay waxali dila la ca lay xamal lu lay nettali itam euh, maanaam mooy rek xamal fa nga yamu moom waaw dee ko dee ko dee ko fuglu bu baax di ko surveiller ba du jàll ci yow fenn foo xam ne loola mën na la ko songee gaañ la waxdarhu na nga koy watandiku illaa qaytahu ndeem tase nga ak moom mu tabassiman mbir mu aji muñ ndax kat fa su gaynde yabdu dana feeñ naabuhu sellam id dabu ba dana mer nee boo ko gisee moom sa noon boobu muy mel ne kuy ree wala muy muuñ nee na rek teewut nang nga ko watandiku bu baax a baax a baax xam ne kat gaynde léeg-léeg nit ki mën naa jaawale reetaanu gaynde ak merom ndax gaynde su meree su meree maanaam ay ay bañam day feeñ gaynde su meree sellam day feeñ te fekk booba loola mandraga mer la ci moom kii ko xamul nag ba song ko mën na caa jëlee loo xam ne du ko nettali kon la wax ne am noonu itam na la mel boo gisee muy rek muuñ nee na ne rek euh, maanaam daa mel ne gaynde googu inna la aduwa naka noon ba wa in taqaad wa in ak donte yàgg na ak donte yàgg na ahduhu jamonoom fal xiqulu kon mbañeel nga baaqin aji des la fi sudur ca dan ya mu xayyabun teeruñu daxañ ca biir dan ya daf ne am noon la wax ne moom lu jamono yàgg-yàgg itam teewul am noonu lay doon Euh, te xam ne mbañal ga moom teewut nee na mi ngi ci moom maanaam du dañ ci moom kon nag bàyyi ko xel bu baax a baax a baax lu jamono yàgg-yàgg rek comme noonu gi xasoon na ba am rek soo waa xamal ne moom day des te moom lu jamono yàgg-yàgg itam teewut rek ma nga ca biiram euh, waxtu na mën naa yeewaat wa ida sadiqu ndeem xarit ba raaytahu gis nga ko mu ne mutamalliqan mu aji ñamasle ñamasle mooy koo xam ne day jar cofeel mooy koo xam ne cofeel gii mu mu lay wan nii bokkut ak gi mu nekk maanaam cofeel gii mu lay wan nii bokkut ak gi nekk ci moom da lay wan feeñalal na la daal ëmbal na la cofeel gu rëy rëy rëy fekk na loola gëmu ko egg ko fenn foofu kon moom al aduwu mooy noon ba wa xaqu te aqam yutajannabu des na ko sori daf ne naka noonu itam bu la yàlla joxe xarit boo xam ne dafa nekk mutamalliq mooy xarit boo xam ne daal day feeñal cofeel goo xam ne nekkul ci moom muy xarit bu naafiq rek xarit bu naafiq xam ne daal da lay fréquenté waaye cofeel gi muy feeñal nekkul ci moom dëgg-dëgg nee na kooku mooy sam noonu dëgg moo moo jar a sori ndax kat moom cofeel gii mu lay indil nii daanaka amul la njariñ xam ne laa xayra déet genn yiw laa xayra déet wenn yiw fii wut dimri in muy nekk ci cofeel astem mu tamallixin kuy aji def mu tamallux muy mu tamallixin kuy aji kuy aji ñamasle xulwil kuy aji neex aw lamiñ wa qalbuhu te mbir moom xolam mbir moom xolam ba yetalaxabu dina tàkk mer daf ne xarit bu maanaam waajoo xam ne dafa nekk koo xam ne day feeñal cofeel gu nekkul ci moom la wax ne kooku xarit xaritoo gi ngay seqe moom amul benn njëriñ xarit gi ngay maanaam seqe moom amul benn njariñ a laa mi mu neex dong la waaye foo ko fekk xamal ne xolam mi ngi tàkk xolam mi ngi mer ci yow waaw yalqaaka dana taseeg yow yaxlifu diggiñ ne annahu naka moom waasiqun aji dëgërlu la bi ka ci yow wa ida tawaara ndem suturlu naan ka mooy boo demee ba gisatoo ko tawaara an ka tawaara xan moom boo ko déggee mooy boo demee ba gisatoo ko te dégg wa ida tawaara ndem suturlu naan ka walis la foofu kon moom alxaqrab mooy jiit ja nee na yëmu ci rek def tama lox waaye da cee boole sax bu ñëwee ci di giñ ne man ko am ci yow confiance la loola neex mën nga ma ko wax waaw loo bañ mu siiw daal mën nga ma ko wax léeg sax mu créé wax la dara loo xam ne day nuru mbiram mbiram te fekk lu ngir nga wax ko yow sa mbirum biir dëgg-dëgg ndax wóor na ko ne yow loo ko wax lu nekk ci yow la waaye moom mën na laa loo xam ne ko ci moom moo tax day ñëw wax la loo xam ne ci day nuru mbirum biiram fekk demul noona bëgg yow it mel ne ku ko wóolu comme gis nga ne wax na la mbirum biiram yow nga sa mbirum biir nee na nee bu mu tax nga ko de ndax nee na bu la wanee gannaaw xamal ne daal day mel ne jiit jooju rek nga xam ne musiba mu ne musiba musiba musiba mu ne rek mën na la ko jural waaw bu la wanee gannaaw daal xamal ne mën naa xëyee ka dox ci lu la yàqal mën naa xëy di dox ci loo xam ne dalay jural fitna moo lay melal ne daa mel na jiit jooju rek wasul na ngay jokk alkiraam way tedd ña ko en jafaw ka ndem nañu la bi jafootin ci ak bëccingal bëccingal mooy maanaam def lu la naqari fa safu kon baale ga wala du mooyu ga an hum leen bit tajaawuzi ànd ak jegale ga aswa bu moo gën a jub ci leneen loo mën a def def ne wax na la ne la ab noonu moom wax na wax na la ni mel ak maanaam tooke ji nekk ci moom kon danga ko war a daw xarit bi nga xam ne itam daanaa fekk di jaxase ay cofeel mooy di jar di jar ak cofeel itam wax na la ne moom it danga ko war a way danga ko war a daw nee na nag kon ñaara fi nekk am noon ak xarit xarit bee moom daa am sikk noonu bee moom baaxut waaye ñu baax ñi nga xam ne mooy ñu tedd ñi nit ñu baax ñi la wax ne koo ci gis daal del jéem a amlante ak moom ak di jéem di jéem a maanaam amlante ak moom ak cofeel di jéem a jokkoo ak moom te ci biir loolu na la wax ne bu boo ci gisee kenn mu defal la loola na xari nee na daal la gën te gën a rafet mooy nga du muyu ko rek te bala ko te daal di jàll ndax kat boo bàyyee sam noonu bàyyi sa xarit bu naafeq nit ñu baax ñii kat nga ne maanaam kenn du ci juum def fa dara soo waa mën ngaa taxali ko ñëpp kon ñu baax ñi dee la jokk di jéem am amlante ak ñoom ak cofeel ci biir loolu nag jokkoo ak am lante geeg cofeel loo xam ne boo ci gisee loolu nag xar na nga ko muñ rek te du mooyu ko nee na loolu moo di ak rafetal foofu waxtar na ngay na xar yi naka sab xarit sa aji langoo muy xarit rek langoo wastafihi te nga tànn ko tafaaxuran ci ak damu wala ngir ak damu innal xarina naka aji langoo ja yun sabu des na ko askanale ilal muqaarani jëm ci kamuy langool daf ne na ngay tànn sab xarit Euh, ndax nit ku nekk dañ koy xayma ca ab xaritam ni nga xam ne aw dàll dañ koy xay dañ koy màndaxe di ko nattale ci weneen dàll la wax ne ab xarit dañ koy nattale ci kam àndal comme nag nit ki yow mën nañ laa waxal ci sa place foo xam ne nekkoo fa jaaree ko ci sa xarit rek kon war ngaa tànn ko ku mu war a doon ki lay représenté daal war ngaa tànn ku war doon ndax euh, nit ki kam yi àndal rek lañu xool dal koy mën a jugé daal koy mën a atte ci ka muy àndal rek ah, waaye nag comme dañ lay xool dañ lay xool ci ki ngay àndal nga mën a wax ki nga doon kon fexeel ba maanaam képp koy àndal rek ku nit ñi di gis na nga ko tànn bu baax tànnee ko ni nga ko bëgg a tànne ndax kat des tànn ab xarit ngir di ko damoo xarit bu baax ku ko am da koy damoo waaye nag comme ni mu la ko waxee rek maanaam tànn xarit moom lu ne am na ca ndax su dee mel na na nga bëgg alhamdulilah ku ne maanaam ku ko gis rek gis la. bu ñu diw ku ko gis gis gis sàngam gis ka ca des loola bu dee ku baax alhamdulilah loola ndam la waaye nag bu ñu diw moom ku ko gis gis ka ca des te fekk yow ñu teg la ko baax suba loolu itam gàcce la kon tànn ab xarit ñaar yëpp a ngi waaye daal da ko tànn bu baax ndax wax nañu ne nit ki diina ji xaritam nekk rek lay nekk diina ji xaritam nekk nekk waaw kon war ngaa tànn sab xarit bu baax waaw loolu la lay dénk innal ganiya innal ganiya naka aji woomal ja mina rijaali ca góor ña mukarramun ku ñu teral la wa taraahu danga ko gis yurja deef yaakaar maa day dayhi fa la nekk fa moom wa yurgabu te deef ko xemmeem eh, nit ñi dañoo fonk ku am am ba kéman la nee daal ku am dara mbaa man dara dañ lay fonk teg la ca kaw a kaw a kaw ak donte sax waay waa waay la joo xam ne ju waaye dee waaye di waa joo xam ne daal maanaam maanaam du nitu dara waaye teewul nit ñi dañ koy fonk teg ko ca kaw a kaw a kaw ngir rek di yaakaar li nga xam ne yor na ko muy xaalis muy ab ak am-am maanaam am-am bi nekk ci moom daal la ñuy yaakaar ak di ca bëgg dara moo tax faaw ñu jéem ko fonk rek kon boo ko xoolee dëgg-dëgg sax nit ñi fonk ju sax ki am waaye am-am lañ fonk te loolu la Ibnu Durayd waxoon ne nit ñi dañuy fonk borom alal ak donte alal alalam joojee xemee muñ ca dara duñ ca amee dara waaye teewut faaw ñu bëgg ko rek ndax alal ji mu àndal wayu bashu te dee fi belli kanam te dee belli kanam albashasha mooy kanam gu tàlli wa yubashu te dee fi belli kanam bi tarxiibi ci yaatal ga inda qudumihi fa ak dikkam yu yuqaamu te dee fi taxaw inda salaamihi fa ak nuyoom wa yuqarrabu te dee ko jegeñal nee na ki nga xam ne daa woomal ci nit ñi la wax ne nit ñi dañ koy war warmaal ak donte da nga gis ne waa waa waaye la jox am tekku dara sax teew nit ñi dañ koy war warmaal di ko jox wàccuwaay ngir xemmem dara ci lim am nee na bu ñëwee sax na da nga gis ku mu fekk maanaam bu ñëwee sax ku mu fekkoon nga mer sax da ngay tàllal sa kanam ba maanaam da ngay rafet di ko si njëree waaw ngir jàpp nga ne fi ne boo réewut de moom da lay boole ci ay noonam ne da da bokk ci ñi ko ak it ni ko yàlla def da laa neexut ak yooyu moo tax fi ne da ngay forcer sa bopp yooyu ak it am ci ñoo xam ne itam def nga koy dañ ko def rek ngir bëgg dara ca moom nee na buñ koy nuyu sax dañuy taxaw maanaam bu ñëwee buñ koy nuyu sax nee na bu leen fekkoon ñu toog dañuy jóg taxaw ngir nuyu ko ak warmaa ko duñ duñ waaye dañ say jóge sax ku ne di ko jegeñal sa bopp jegeñal sa bopp mooy kenn ku nekk naa ko kaay toog fii wala fam ne nga dem fekk ko fa toog jege moom wala nga naa ko ñëwal fii wala nga bu dee ci kër la nga yow yow jël ko yóbbu sa néeg waaw <laughs> jël ko yóbbu sa néeg tubaarkàlla waaw wala ñu naan ko foofu moom xaaral xaaral bu mu toogoon foofu xale yi dañu fee toogoon yooyu yëpp ay xeeti xeeti kii xeeti jaamu alal la waaye moom daf ne inna la xaniya dafa ne ki nga xam ne moo womal la nit ñi terale noonu waaye nit ñi dëgg-dëgg duñ teral ki womal nit du teral ko womal dëgg-dëgg boo xoolee waaye woo koom mañu koom mañu ñu jorte ca moom koom ma la ñuy ndax bu doon loola ki womal bu ñàkkee ñu koy teral ba léegi na masaa womal déedéet waaye comme yoratu ko rek teraanga jooju day dañ kon li muy tekk mooy nit doomu aadama sa dëgg-dëgg du wormaal ki womal waaye koom ma ñuy jorte ca moom lañuy ñuy wormaal ndax ki womal bu xëyoon ñàkk tey tey ak donte même waa ji la euh, tey masoon naa am su boobaa maras na ko ormambale waaye déedéet waaye su xasee ba ñàkk rek dañ ko fay bàyyi kon nit maanaam nit ñi dañu warmaal teraanga dañu warmaal am am tubarkàlla wal faqru cheynun lirrijali fa innahu xaqan yahuunu bihi sharifu l ansabu waxfid janaxaka lil aqaribi kullihim bitadallulin wasmax lahum in adnabu wadari lkaduuba falaa yakun laka saaxiba in alkaduuba yashiinu xurran yasxabu wasin ilkalaama ida nataqta wala takun thartharatan fi kulli naadin taxtubu waxfad lisaanaka waxtariz min lafdihi falmaru yaslamu billisaani wa yactabu wasirra faktumhu wala tantiq bihi in azzujaajata kasruha laa yushcabu wa kadaaka sirru lmari in lam yatwihi nasharathu alsinatun taziid wa takdibu laa taxrisan falxirsu laysa bizaa'idin في الرزق بل يشقي العريص ويتعب ويظل ملهوفا يروم تحيلا والرزق ليس بحيلة يستجلب كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب dafa nekkoon di wax ne nit ñi dañuy fonk lool ku am ba tax na sax nee na buñ ko gisee rek dañu koy wormaal ak màggal ngir yaakaar maanaam dara ci moom ak di bëgg dara ci moom bu ñëwee ñëpp dañ koy gàttandoo xar kanam bu laar buñ koy nuyu ñëpp dañuy taxaw di ko jegeñal seen bopp mu ne nag safaan bi mooy ak ñàkk wal faqru ak ñàkk cheynun ak ñaawal la li rijaali ñel ña fa innahu nag moom nag xaqan ca dëgg-dëgg yahuunu dana doyodee bi ci moom asharifu aji tedd ja al ansabu ku gën yëkkatiku askan daf ne safaanu am gi nag mooy ñàkk nee na nit moom boo ñàkkee duñ xool noo mel ak foo bokk ak loo doon man ñàkkee tax daal nit ñi dañ lay doy ak donte sax danga bokk ci askan yi gën a baax askan yi ñu xamee mbaax yépp ak euh, maanaam daal noo mën a mel rek boo ñàkkee daal nit ñi duñ lay doyalal duñ la euh, daanaka rek euh, duñ la jox yitte wax fi na ngay suufeel janaaxaka sam laaf lil aqaaribi ñeel janaaxa kay def sa firis ak wàll lil aqaaribi ñeel jegeñaale ya kullihim képp ca ñoom bi tadallulin ci ak toroxlu wasmaxta ngay baal lahum ñeel leen in adnabu ndem bakkaaru nanu daf ne euh, maanaam sa biir mbokk boo ci nekkee da ngay suufeel sam laaf loolu mooy bul rëy bu leen nekk daal di leen jaay dara daal na nga nekk ku woyof ci seen biir xam ne ak mbokk moom yàlla ko dogal nit ki la ngeen mbokk mënoo koo dagg wàcc nekkal seen biir nekk doon ko lawet euh, toroxlu ci seen kanam buñ juumee itam ba def naka suur noonu itam nga baal leen te bal leen bal leen ca topp di xool daal jamono ju nekk rek ngay xool li nga xam ne mooy rafetal mbokk yi ngay doxe noonu wadar na ngay bàyyi alkaduba fenkat ba falaa bu mu nekk saaxiban di aji àndaale wala di ab àndaale la ka ñel la ndax kat innal kaduba naka fenaakon ba yashiinu dana ñaawal xurran gor xabu kook dana àndanteeg moom nee na ki moom saa yoo demee ba nemmeeku ci moom wax wax lu amut am daal ba nemmee ci moom daal bu doon mukk sab àndaale maanaam def muk ab àndandoo ndax kat nee na ab fenkat la wax ne maanaam day day day taasal gor maanaam day tilimal gor ndax xas la sax day yomb dañuy wax sax léeg-léeg naan la yéen a yam rek waaw nit ki bu waxee yéen yam na ci koo xam ne ab fenkat nga bu la waxut da ngay daanaka wax na la ko nuru wala amoon na yéen ci daal ànd ak doo am maanaam gor guy ànd kuy fen daal nee na loola yàq ab deram la ndax buñ ko tuddee tudd la rek wax na ñoo yam rek comme ñi ngi ànd soo xoolee rek boo boo taxawee ci baat bi mu jëfandikoo alkadub nga xam ne dafa nekk bii siixatul maanaam day nekk siixatul mubaalaxa ci maanaam faawul euh, par rapport ak bu ne woon kaasib kon kaso boo ko déggee mooy koo xam ne daanaka rek euh, day fen lu baree baree baree bari waaw ndax euh, tëggin wee tax wasin peese alkalaama wax ja ida nataxta ndem tudd nga wala takun tabul nekk tar saaratan di ko bari ay wax di ko bari coow kook da xutba fii kulli naa dañ ci mépp penc nee wax moom daa mat bala ngaa wax dara na ko mesure na ko mesuré xool ko xoolaat ko bu baax a baax a baax te it bul def koo xam ne daal maanaam ndaje mu ne yaa yore wax ci lim ne fii kulli naa din taxtu bu mooy ndaje mu ndaje moo dem daal wax ji moom yaa koy ŋàbb yaa yor wax ji moom nga xam ne daanaka sabar la ñu dégg lu ne yaa ko xam. waxfad na ngay wattandiku wala da ngay wattu bokk da ngay sàmm lisaanaka saw làmmiñ waxtariz da ngay wattandiku min lafzihi ca baatam ba ndax kat falmarawu cem si cem mooy rek mooy nit ki rek falmarawu cem si bil lisaani ca làmmiñ wa yaslamu lay mucce wa yaatabu te ca lay alko nee na saw làmmiñ nanga ko sàmm bu baax a baax la ca mat a wax lu baax ak ak maanaam ak njëkk nga ko cay wax te maanaam sàmm ko bu baax baax lépp loo xam ne matu caa wax moo xam lu aay la ak lu ñuy tere lu aram nee na nga watandiku ko bu baax a baax te neex nee na nit ki moom ci làmmiñam mën na caa defaroo de ba mucc waaye mën na caa alkoo itam eh, loolu moom manees na faa ubbi ay parent entre yu bare bari ci loolu ci maanaam nit ak làmmiñam eh, mu sa làmmiñ na ko sàmm bu baax a baax te watandi ko baat yi nga ciy génnee baat yi nga ciy génnee na nga ko bu baax a baax a baax ndax kat mën nga cee wax lu la dugal kaso mën nga cee wax sax lu la rey mën nga cee wax loo xam ne dootoo defar mukk ci àddina waaye mën nga cee wax itam ba mucc waaye daal li gën li gën a wóor mooy nanga ko sam bu baax a baax xool la nga wax bu baax rawatina jamono yi nga xam ne loo wax rek des na ci téléphone yi des na ci baga ci ci maanaam ci barab yi nga xam ne ay serveur la yu mel noonu. wa sirram mbóot ma soo ko defee sirram maful bi jiital ko. mboot ma faktumu na nga ko nëbb wala tam teq te bul tudd bi ci moom boo ko defee wa sirru rafaa ko itam def ko mubtada wa sirru mboot ma faktumu na nga ko nëbb wala tam teq te bul tudd bi ci moom ndax kat inna zujaajata naka verre ba wala naka butée ba kasruha ak tojam laa yushaabu deefi ko mën a eh, boolewaat laa yushaabu deefi ko mën a tappalewaat nee na sa mbirum bopp mooy sa sa sa maanaam sa secret bopp na nga ko nëbbu bu ko wax mukk wala secret suñ la dégg rek nee na secret boo xam daal nee na nga ko nëbbu ndax boo ko waxee kat nee na mi ngi mel na rek ab weer bu ta bu daanu weer bu daanu moom nee na bu xasee ba toj na defaraat ko du yomb de wàcc rek. wa ni ke nii la sirrul mar'i secret cam si in lam wi ndem taxañu ko dencal ko boppam nasharatu kon jokkalante ko ma wilipande ko tasaare ko. alsinatun ay làmmiñ te ziidu yooyu danañu dool dolli wa takdibu te ñuy fen nee na ni ma waxee ci biteel bi rek ne secret nit ki moom sa secret bu ko wax ndax daa mel ne verbe boobu daanoo toj rek nee na desu ko mën defaraat nee na nit tamit nee na secret secret boppam noonu la mel sa mbiri bopp daal nee na soo ko taxañu sa bopp ne cell ne miig ak moom waaye neen soo xasee ba tasaaree rek xamal ne nit ñi dañu ko joxlante kii yokk ci ki wàññi ci kii sosal la ci te doo ci mën dara ndax comme yaa ko xas boo wax rek nga xam ne da nga fay toppaat si di defar déclaration di wax fekk na euh, boo ne woon cal rek mu yem foofu waaye comme da ngaa sa mbir nag nit ñi làmmi ñi jël ko itam dala ci dimbale ñu ko tasaare ci fépp ñi di dolli ñi di wàññi ñi di fen laa taxrisan bul xër fal xirsu xër laysa bi zaidin déet muy aji dolli fi risqi ci wërsëg bal li fi nekk yushqi dafay dafay dafay texeediloo alxarisa aji xeer ja mooy ka xeer wayuta ay wayuta ay boo tam koy sonal nee na xeer moom daa nekk daa mat daa mat daa matt daa mat def ndax xeer taxut lala la yàlla bindal ci wërsëg nga dépassé ko li yàlla bind ci wërsëg ci bi nga juddoo ne moom nga fi am ci wërsëg boo tëddoon sax di nelaw di ko am waaye nag sabab la mënta ñàkk waaye xeer nag moom ba àgg ca nee na loolu moom du dolli wërsëg bal li muy jural nit ki sax mooy ay coono la koy jural. ak bëgg loo mënta am ak maanaam maanaam maanaam eh, xemmem la sa bakkan daal loo xam doo ci jot am da stress la lay jural waaye dallu te muy yendu malhuufan di ñu jàqaloo malhuuf mooy ku ñu eh, maanaam jàqaloo mooy ku amee stress daal ku triste yarumu ko day sàkku taxayulan pexe war risqu te fekk na wërsëg laysa yustajlabu laysa yustajlabu deefi ko sàkkoo ñoddee bi xiilatin ci am pexe neen su ko defee comme da nga bëgg lu ëpp li yàlla bindal faaw nga sonn neen su ko defee nag nga nekk ku jàq ku amee stress koo xam ne fu ñu la fekk yaa ngi wut pexe moo def rek ba am ba génn ci maanaam pexe moo def ba am dara te fekk ne xamoo ne wërsëg moom maanaam pexe da koo ñoddi wut pexe ñoddiwu ko wërsëg pexe indiwu ko ba wërsëg yàllaa koy joxe eh, dala koy bindee waaye nag teewut faaw ngay sabablu waaye li ñu bañ mooy ngay sabablu ba noppi jàpp ne sabab bii rek moo tax nga war a mën a am maam def nangam rek moo tax nga war a am déedéet da ngay da ngay sabablu ba noppi nag te ci biir sabablu googu ngay bàyyiwaale xel toujours di teewlu ci sama xel ne li may sabablu sabablu mënuma passé fukki dërëm ci bi bu dee moom la ma yàlla bindee nga xam ne loo son son rek da ngay li ma yàlla bindee mënuma ko passé li bañ mooy nga jël ak am-am ak lépp jàpp ne rek moom coonaa koy joxe ak maanaam pexe ak mën a dugg a génn mën a lijjanti bayit bi mu ci teg nag mooy moo leen di séparé maanaam mooy leeral wax ci kam aajizin baraana aji lot baraana aji tale fi naasi ñi yaati ko koy dikkal risquhu wërsëgam raxadan mbirum yu aji yaatu wayu xaramu te dee fi xañ kay yi sun aji yeewu wayu xayewu te dee fi tas yaakaaram te dee fi ko na boo ci biir ñi da ngay koo xam ne am xelam neexut maanaam mënta jàng mënta bind wàññi sax mënu ko waaw yàlla defal ko lu ne gàññi loo xam ne sonnu ca nga xam ne bu dee nit ku gëmul yàlla sax boo ko dee xool da nga naan kii méritewut alal ji wala méritewut wërsëg yu ko yàlla defal ndax da nga jàpp ne comme mënta jàng mënta bind aw turam sax bu maanaam buñ ko bindoon mënu koo liir te nga gis wërsëgam yaatu lool suñu borom defal ko tawfiix nee na nga gis keneen ci wet ga koo xam ne itam maanaam moom day sonn lool doon ku yew ku intelligent koo xam ne bari nay pexe lool bari dugg-dugg lool waaye daal lu mu yaakaar rek du ca jot maanaam daal da ngay gis ne rek euh, maanaam wërsëgam taxu ko demee noona te bu doon am xel moo koy joxe kon mu am ko su doon itam test sa koy joxe mu am ko kee nga xam ne mënut a jàng mënut a bind mënut liir am xelam sax taxu ko demee noona euh, mu ngoog kon wërsëg xeer du ko joxe waaye xeer lu muy joxe rek mooy ay coono ak bëgg loo mënta am li koy joxe mooy sabablu ba noppi itam euh, bàyyi xel ne sunu borom moo koy bind warcal amaanata wal xiyaanata fajtanib wacdil wala tadlim yatibu almaksabu wa ida asaabaka nakbatun fasbir laha man zaa raayta musallaman laa yunkabu wa ida rumita min alzamaani biribatin aw naalaka al amru al ashaqu al ascabu fadrac li rabbika innahu adnaa liman yadcuuhu min xabli alwaridi wa aqrabu kun ma statacta an al anaami bi maxzilin إن الكثير من الورى لا يسحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وإذا رأيت وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولا وحرضا شرقها والمغرب walaqad nasaxtuka in qabilta walaqad nasaxtuka in qabilta nasixati fa nusu agla maa yubaacu wa yuhabu xudha ilayka qasidatan mandumatan jaatka nadmi durri bal hiya ajabu xikamun wa aadaabun wa jullu mawaaxidin amsaaluha li dawi lbasaa'iri tuktabu fasqa li waxdi qasidatin awlaakaha tawdu lculuumi shaamixaati lahyabu acni caliyan wa bna cammi muhammadin man xussa bi sharafi rafiihi al ansabu yaa rabbi salli ala nabi wa alihi adda alxalaaiqi asquha la yuxsabu warxa na ngay sàmm al amaanata kóolute wajtanib ta nga teet mooy ta nga bàyyi alxiyaanata warga waadil ta ngay maandu wala tadlim ta bul tooñ mbir moom dana tey almaksabu pàggukaay ga daf ne kóolute gi nga xam ne moom la ñëpp am ci yow wax ne na nga ko sàmm bu baax a baax a baax a baax maanaam daal ñi la ñëpp daal bu ñu gis yow mukk ne da nga leen a mas a wor maanaam daal mboolem ko la wóor rek bu ko wor eh, kóolute gi daal na nga bu baax a baax na ngay maanu bul jàng bul tooñ itam bul faral bul faral kuy tooñ bul dimbali itam ak tooñ soo ko defee daal maanaam sag pàgguwaay dina teey mu ne wa ida asaabaka ndem wa ida asaabaka ndem jot na la mooy dal na la rek nakbatun aw tiis fasbir kon na ngay muñ laxa ñeel ko man za ana kan mooy ka nga xam ne raayta gis nga ko la man muy kuñu musal laa yun ka bu koog deefi ko tiisal ci dundam nee na àddina mu ni ko yàlla bindee neewaana nga gis fi ku dund ba faatu te su borom tegu aw tiis ku rafete muñu fi nekk nga xam ne muñum gu rafet tax na doo xam lu ko dal wala doo xam lu ko mës a gaar waaye daal eh, nekk fi ba jóge fi daal te suñu borom tegul aw diis amul daanaka ñaara fi nekk ku la diis la ay nattu ak ku la gën ak ku la dàq muñ waaw nee bu yàlla nattoo nee na aw tiis eh, aw tiis bu dalee sa kaw na ko muñ bu baax a baax a baax a baax ndax kat amul kenn kuy dund ku yàlla musal ci aw tiis bu ñu ñëwoon ci anbiyaaw yi nga fàtte sa bopp su ñëwoon ci awliyaa yi nga fàtte sa bopp nga topp ko noonu rek ba ci ñi gën a jege yàlla ku la gën a jege yàlla ëpp loo tiis wa ida rumita ndem sànnees na la biribatin ci ayib min azamaani ci jamono aw naa la ka wala jot la al amru mbir ma al ashaqu ma gën a tiis al asxaabu ma gën a jafe su boobaa fadra na ngay toroxlu li rabbika jëm sa boroom innahu naka moom naka moom sa boroom adnaa moo gën a jege liman ñel koo xam ne yaduuhu dana ko woo min xabril waridi ca biim ca buumi xolom wa aqrabu te mooy gën a jege tey wa aqrabu te moo gën jaa jege ko wa gën a jege alquran la innahu wala eh, suñu borom ne wa nahnu ma tawassusu bi nafsu ilayhi min ablil warid waaw wanaclamu ma tuwaswisu bi nafsu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid daf ne su dee aw tiis jamono dala teg aw naqar wala aw tiis wala mbir yu jafe-jafe-jafe la wax ne bu ko muñe dara lu dul nee na na nga dem toroxlu ci kanam sa borom subhanahu wa taala woo ko ñaan ko ci turam yi moom moo ne ñaan leen ma ma nangul leen te nee na sunu borom kat moo gën a jege ab maanaam nit ki ay buumu xolam ni ko jegee al awrida ni mu jegee doomu aadama ci ci ci ci maanaam ci dënnam daanaka bu làmbee daj ko ni mu koy jege jege naan suñu borom moo ko gën a jege fuuf kon su boobaa nanga nga toroxlu woo sa borom subhaanahu wa taala kun nekkal mastatanta sa kem kattan bi maxsirin ci ab beruwaay bi maxsalin ko ci ab beruwaay wala bi maxsilin itam mën na ko nekk ci ab beruwaay anil anaami walis minefi ndax kat innal kathira nag aji bari minal waraa ci mineef yi laa yusaxabu deeful mën ànd deeful mën ànd ñoom eh, mineef yi moom am na si ñu baree bari ñoo xam ne kenn mënut ànd ak ñoom ñooñu la wax ne sa kem loo mën rek ci di leen soree ka jéem a beru fexe ba eh, def distance digg ak ñoom nee moo gën ndax des mën ànd ak ñoom ndax seen jikko yu yu ak yu mel noonu kon nee ñooñu loo leen gën a mën a ber rek sa ber sa bopp rek moo gën. wax dara na ngay watandiku musaaxabatal la imi àndanteeg aj soxor mooy ku tekkiwul dara maam ku ku ñàkk solo rek ndax kat fa inneew naka moom yox di dafay walle kama yox di nekke muy wàlle al aji rabu aj ràmbu ja aji amee jàngoro ràmbu asaliib aji mucc ja dara dalut nee na itam nit ku nit koo xam ne ku ñàkk solo daal nit ku tekki dara daal na eh, maanaam dara wattandiku di moom ndax eh, jikko yooyu day wàlle jikko yooyu dafay wàlle kon nit ki bu dee dafa amee jikko yi maanaam xeeti maanaam euh, nit ku tekku dara nga xam ne maanaam daal nit ku nit ku maanaam koo xam ne daal euh, maanaam bari na jikko yu bon yu nekk ci moom la wax ne watandigol de ànd moom di àndante ak moom ndax eh, jikkoom yooyu mën na la koo comme ni nga xamee ne maanaam ku ràmb amee feebaru ràmb nga xam ne day day yu mel noonu ni mu koy wàllee maanaam koo xam ne eh, dara dalu ko comme ni jàngoro yi corona ji di wàllee noonu lay wàlle waxdar na ngay watandiku minal mazlumi ca kañu tooñ ndax kat sahman ak fett la saa iban bu aji jam minal mazlumi ca kañu tooñ ak ñaanam sahman ak fett la saa iban bu aji jam waa tax mu ne waxalam na nga xam bi ànd na duwaa ahu ci naka ñaanam ga laa yox jabu def ko yiir nee na maanaam maanaam tooñ nit moom watandiku ko ndax kat eh, nit kuñ tooñ suñu borom da ko mën a faral lool ak dont am yéefar la sax sunu borom da koy cay far ca loola te it bu ñaanee sunu borom du ko delloo ak donte moom moom mi nga xam ne dañ ko tooñ am la ak ñaanam sunu borom du ko delloo moo tax lu ñu ne du ko yiir mooy du ko delloo sunu borom saa saa yoo xam ne ab jaam dañ koo tooñ sunu borom da koy dimbale taxaw ci wetam dimbale ko ba mu mucc ca tooñ googee moo tax mu ne ak fet la goo xam ne fet la goo xam ne day jam kon na nga ko wattandiku bu baax baax kon wattandikul tooñ ndax ku ñu tooñ su ñaanee sunu borom sunu borom wuyu ko ak donte ab yëfar la. wa idaa raayta ndem gis nga eh, arrisqa wërsëg xazza muy jafe bi baldatin ci ab dëkk wa xashita ta nga ragal an ci mu xat almadhabu yoon wax fiihaa ci moom farxal kon nanga laxas fa ardullahi ndax suufu si yàlla si waasiatul fada aji yaatu jaww la yaatu ay eh, aji yaatu ab la tuulan ci guddaay wa ardan ak ci yaatuwaay sharquha penkoom wala maghrib ak sowom nee na soo nekkee ci barab ba yàgg nga gis ne am fi dara jafe na la lool te nga ragal ne boo fi toogee moom day a jafe rek nee na kon looy xaar da laxas da ngay laxas dem feneen da ngay dem feneen ndax comme da ngay làmbut rek fu amee dara fii mënoo fi amee dara da ngay jàpp ne boo demee feneen xaj na la nga bëgg mën ko amee foofee ndax suufu si yàlla si yaatu na lool moo xam gudd na yaatu na moo xam penk wala soow suuf si na lool waaw ardullahi waasia foofi dem daal jàpp ne fii moom gis ne maanaam jafe na lool mbir yi dëgër na fi lool munoo fi am dara neen su boobaa da ngay laxas daal di dem feneen ndax xaj na li la jafe fii mën na laa yomb foofee wala xad nasaxtuka laa bire naa la in xabilta ndem nangoo nga nasixaati sam nga laa bire nee na laa bire googu mu doon wax ci ginnaaw naan la ki la koy jox nag maanaam ku yàgg fekke la ku xam mbir yi lam tàmbale moo tàmbale woon ci laata am na ni dexar jooju la tàmbale woon mu ne ki lay laabiire loolu la wax ne koo xam ne ku baax la ku laabiir koo xam ne mbir yëpp maanaam am na ci expérience yàgg ci jamono ak waa jamono nee laabiir googu moom la wax ne la wax ne mu noonu laabiir naa la ko foofu la yam boo ko nangoo mu doon ak laabiir ndax kat fa nusu labir ga ak laama mooy gàncax cher yi la nga xam ne muy gàncax valeur yi la nga xam ne yu baaxu def na ko jaay wala yoo xam te def ko maye mu ne laabiire gaa ngoog lépp lu jafe ba mënoo ko am wala lépp loo xam ne kenn du ko may ndax bëgg ko nee na ak labiré ko gën a cher mu gën a gànjaru moo ëpp valeur kon labiré gàngoo ko mel na la xasida la yem bayit yi nag dafa mel ne dañu wax ni wax ne dañ ko cee dolli muy juróomi juróomi bayit yi mu tàmbalee ci xusaa jàpp leen wala jàpp ko ilayka jëm ci yow xasida te mbir muy ab xasida man doomatan tey wu ñu way jaat boo xam ne dikk na mi durri di mel ne ki nasug kursu dur bal li fi nekk sax yéen moom aajabu moo gën a yéeme daf ne waaw koy xasida nga jàpp ko xasida la goo xam nañ ko way mu rafet lool taaru mel ne wurus woowu maanaam wurus woowu wurusu dur woowu ñu jël ko nas ko ba rafet am tegale per yi mu yàgg sax mu ne déedéet xasida gi sax moo dàq wurus woowu ñu nos noonu ba mu jekk daani xikamun ay xikam la wa aadaabun ak ay adab ay teggin wala ay sew-sew wa jullu mawaaxisin ak ëpp lu ëppi waaraate am saalo yoo xam ne seeni kem bu des na ko bind li dawil basairi ñeel waroom gis-gisi xol yi nee na xasida gaa ngoog ay waaraate la lambo xikam yu baree baree baree bari ak ay teggin ay dox ay jëflante yu rafet nga xam ne nee na xasida la yoo xam ne ah, ñi koy bind ak gëstu mooy ñi nga xam ne suñu borom da leen defal gis-gisi xol waaw fasxi na ngay diglu li waxdi xasidati ñeel waaraate ak xasida awlaakaha boo xam ne jox na la ko tawdul ulumi dojub xam-xam ya ashaami xaati yedi way yëkkatiku al ahyabu ka gën a wegu ah dama jublu ne kooku aliyan mooy ali wa ibna ammi muhammadin tey doomi bàyya taxi yonante bi sallallahu alayhi man mooy ka nga xam ne xussa jagle lees na ko bi sharafi ca teddi nga la lay aji yëkkatiku al ansa bi la gën a yëkkatiku rek Euh, wala ansab ka gën a yëkkati ko askan waaye mooy ka gën a ko ba tey rek daf ne euh, déglul xasida googu kum xasida waaraatale goo xam ne kila ko jox nee ku maanaam ku bari xam la li ne tawdul ulumi maanaam ku kawe kawe ci xam-xam la maanaam daal daf mel aw doju ci xam loolu dañ koy tàgg ci ci nit nee ki ko jox mooy kooku kooku nag nee na boo ko xamul mooy Ali ibnu Abi Talib nee cousin la ci yorante bi sallallahu alayhi wa sallam seen ñaari baay ñoo bokk nee mooy ki nga xam ne moom lañ jagleel moom lañ jagleel tedd nga lu kawe kawe muy Ali yaa rabbi salli ala nabi wa alihi abdal xalaiqi asruha la yuxsabu yow sunu borom salli yàlla nga dool tedd nga ala ci yorante bi wa alihi ak ñoñam abdal xalaiqi abdal xalaiqi li mu mbindee fii xasruha yooyu def xasruha yooyu seenu takk la yuxsabu def ko mën a lim yow sunu borom yàlla nga dool teranga ak jàmm yorante bi ak ay sahabaam ak ay ñoñam teranga ak jara maanaam salaatu salaam joo xam ne day toll ne limu nga xam ne kenn mënu koo takk subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi alamin rabbi ya hali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala عليه خير صلوات السمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالي